ci ni ñaanale ku fi bàyyi ko ak ni koy saraxale kon maa ngi lay delloo am nuyoo di ko jàllale ci képp kuy dégg sama kàddu di wax ne ñaanal ko faatu lu baax la ci kan koy defal waaye lu baax la ci ki koy def saraxel ko it lu baax la ci ki koy def ak kañ koy defal waaye mboolem li ñaanal nit lu mu mën a doon jàpp naa ne jàngal ko alquran ak i salaatu ala nabi ak i di ko jullil dara du ci ëpp solo waaye yooyu yëpp nag li ko gën a gaaw mooy saraxel ko rawatina saraxel ko ndox da cee daal jot fi saasa te da koy fi saasa jàpp naa ne benn liitarum ndox wala benn bitéel ndox bu ndaw nga saraxel ko nit mu ëpp doole fuufu nga saraxel ko aw nag te nit ñi xamewuñ ko nag kon fa benn canette bu nga jox ko ku mar mu naan benn bitéelu eau minérale nga jox ko nit mu naan nga fa ba yéene ko ku faatu koo yéene rek yéene ko mu dem ci ruuxam rek dana ko jariñ loo xam ne kenn xamul nu muy toll nag loolu lu mat a bàyyi xel la lu melne yi nga xamne dañ ko ñaanal ko faatu itam bu de koy doora dem ñetti fa ni jëkk lay gëna soxla ak ñaan muy gudd gu jëkk gi muy njëkk fanaat ci bammel ak gaja top ak gaja ca toppaat yooyu nag soxla nañ ko koy defal li ñox fi wax fi fidaaw moy jot nit bañ dal koy jéggel fi saasa dis na ko def fukki jinne bi salaam alayhim ak ñaar 12000 basmala dis na ko def suratul mulki 31 fanweer rek ben saar wi yooyu am na doole lool ci defal ko faatu ngir ñu daal di koy jéggal fi saasa suratul ixlaas it ni ko sëriñ bi waxee daana ko santaane bu baax ñeen fukki yoon kepp ñeen fukki kepp loo dara du ko jiitu dara du ko mujj te daa wax nañ ko jàngal ñeen fukki suratul ixlaas bu ci na ànd ak bisimilah rahmaan rahim loolu la jot faatu jot ko la am na it julli gu jullil ko faatu sëñ Chouaib bu def na ko ci téere bi man mi am naa mbindum sëñ Tuubaa moom ko bind mu wax ci ne dangay ja julli ñaar rakka jàng faatiha ba mu jeex nga teg ci ayatul kursi benn yoon aleykum takaasur ba mu jeex benn yoon teg ci suratul ixlaas xul wallaahu ahad ba jeex fukki yoon ak benn ñaar rakk yëpp loolu nga ciy jàng boo noppee nag yéene ko ki faatu moo xam koy door a faatu la moo xam bu yàgg la waaye da ngay wax boo sëlmalee ne allahuma inni sallaytu haasihi salaata wa taalamu ma uridu allahuma ibxas sawaabaha ila xabri daal ci teg turwa bu dee mbooloo nga wax ilaa xuburi tudd leen moo xam bu ñu yàgg la bu yàgg lañ faatu moo xam ñuy door faatu lañ moo xam kenn la moo xam mbooloo la ñëpp ci mën a jariñu boo mënta wax arab yi it nga wax rek boo noppee ne sama borom yow mii xam nga julli gii ma julli li tax ma julli ko kon nag dimbale ma rek tuyaabay tuyaabay julli gi yobul mako ci bamelu diiw rek mu jot ci rek la ñaan gi euh koko def rek fis sa borom danañ ko daldi di yaatalal bamelam indil ko fa ay junne junne leer ak ñukoy wettile ñum ñame ñu rafet ñu duk wettile mu mel ma nga aljana ta fekk min ci bar sax way la ci aljana lañ ko andil mu ne ci loola rek bakaru ñuy wal bufta bi di taxawal bis ben ci lay nak vision.com la crédibilité notre credo Cinevision.com, world to Togo. Sénévision.com, kumpa